acarasit xam nga ne gëwsu bu xew xewlee ku doon xewlee da ngay xaar ba mu pare borom différence couture maa ngi nii nag ci sëñ Malick Fall borom sopp sëñ Saliou couture fi laa ñëw euh, dafa bokk ci sargal yi nga xam ne gëwsu da leen di sargal le 3 février fële ca manufacture des arts nee naa leen tikkee nag ku yéex ñàkk simple 2000 la VIP 5000. ñun ñëpp daw leen ñëw fële ca Manufacture des Arts ndax gaw su ñëpp fay ko borom borom la différence couture borom ciseau d'or macha allah waaye nag euh, fi ma toog nii laa maa ngi lay ziar. waaw euh, maa ngi lay fay. yaa ngi si jàmm bu baax a baax. alhamdulilah waaw ñu ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu bu baax waa RTT TV. di nuyu tamit waa chaîne 24. di leen kontaane bu baax ci ñëw bi nga ñëw ci daaray Malick Fall. Mhm. ñu gën koo xam ci Serigne Saliou Couture waa ñëw ngeen marché Grand Thiès nag bi nga xam ne moom la jiite ah mu nekk président bi aussi ñu ngi leen di jaajëfal ci ñëw bi di kontaan bu baax a baax a baax. macha allah turam ala daw me ne waaye turu atelier moom benn demul mu des Serigne Serigne Saliou Couture borom jamono Couture macha allah bég nañ ci lool bu baax a baax tur bi nag moom. Mm-hmm. daa mel ne ñun ñoo ko moom maag tata ne na jaxate ak uh, saalihaat yi yëpp. waaw nga nekk président wu Massa Grand Caisse hmm. ñu fekk si la fii di la ziyaaraat bu baax a baax hmm. te naan la nag su daa pare pour sargal la nag président hmm. mhm, président Malick waaw waaw loolu moom sant yàlla la rek ndax euh, la différence couture ñu ko gën koo xam si Gawsu Diop ah wax dëgg yàlla bu xoolee sunu jëmm ju xeebu ji ah mu bokk ci ñi nga xam ne ci euh, le trois février mu bokk ci ñi nga xam ne dañ ñëw bëgg a sargal ah loolu moom sant yàlla la te it ñu xam ne rek euh, xëy na ci mbaaxam la aussi ndax wax dëgg yàlla xëy na bëri na ñoo xam ne mënoon na leen xool sàggal leen waaye buñ ci xoolee suñu jëmm ji wax dëgg yàlla ba bëgg ñu sargal ci bis bi ah dañuy xam ne rek ci mbaaxam la ci it wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ni la différence couture liggéeykat la macha allah ndax moom moo yor événementiel euh, regroupement des euh, région de Thiès mu jaan nekk ci njàmbaar di ci liggéey lu am solo bis boobu daal wax dëgg yàlla caat mm. waaw ñu ngi koy waajal incha allah. président nee na mu ngi koy waajal président Malick Fall borom marché Grand Thiès nee na mu ngi koy waajal mook waa. sopp Serigne Saliou Couture yëpp ak saalihaat yi yëpp nag hmm. waaw damay damay jéng daal saalihaat yëpp moom la àndal ñu dem <laughs> vraiment Gawsu di ko nit ku baax nag mu jëbal nag la trois février mm-hmm. bëgg la ci sargal tànn la ci mm-hmm. ndax tànn na nit ku baax ku mu war a tànn nag mm-hmm. Gawsu Jóob baax na yaatu na laabir na oyof na tamit te nangu na tànn nag ñëpp ñu mu war a tànn yow nga bokk ci ndax am na loo xamante ne nag du sens mérite la mérito ngeen mu sargal leen guddi googu nga war def sa dara bu baax. Mm-hmm. di di dukkat di ñëw bu mm-hmm. biir manufacture. <laughs> waaw waaw yàlla baax na ndax mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla bis boo bis bu ñu neex la nag ndax Gawsu moom yaakaar naa ni képp ku ñëw ci bisam na nga koy fay borom ndax lebaloon na la ko parce que wax dëgg yàlla gis nañu taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ci ci ci région de Thiès laay wax waaw du ma wax département région bi parce que lépp lu fi waaye di organiser lu jëm ci wàllu défilé de mode wax dëgg yàlla boo ko di nga ko xalaat pour dugal participer laaj ci expérience am ak taxawaayam ndax wax dëgg yàlla nag euh, jàmbaar la kilifa la aussi parce que yàlla dogal na mu bokk ciseau door loo xamante ne compétition la boo xam ni du compétition bu ndaw te it wax dëgg yàlla mu ànd ñu ànd gunge ko dem fa mu defalu lu doy waar kon kooku bu wootee tey day jaadu képp koo xam ne téer nga nekk ci département bi ñooñu moom moom moom c'est obligatoire képp koo xam bëgg nañ nga ñëw fekk bis bi wax dëgg yàlla jàppale ko ndax Gawsu nit ku ëmb la nit ku joxe cër la nit ku am yar la nit ku am respect la kon nag bisam jàpp naa ni képp ku ko dégg waroo ko lu te incha allah ci kàttan yàlla li ma koy wax chaque jour rek nee ko ci kaw ci kanam ci lu baax incha allah bis bu réussir lay doon ci ka amul sax dem dégg ci kàttan yàlla parce que Gawsu ci boppam moo toll noonu waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax di di ñaan bis bi yal na ci suñu borom def sutura ah dolli ci xéewal te incha allah am nañ ci yaakaar nag wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax waaw xanaa rek. foofu la ñuy jaare nag nuyu xaadim sëñ xaadim mu sell mu màgg mi macha allah bàyyi seex yi. Mhm. fii ci Grand Thiès waaye noonu laay ziare élément saal yu ba nekk fële ca muusante muy mhm. Papa Ndiaye kooku sama mag la mhm. boroom tay baas yu rafet yi kooku damay ñawal may sol vraiment nit ku baax maa koy ziar bu baax tonton Baye Sidi maa mais nag euh, président. depuis ñaata at nga yor marché bi. waaw marché bi defe naa ne euh, bi ma ko dalee yore léegi maa ngi ci sama daanaka léegi parce que ci mois de mars bi mhm. lay dugg sama fin mandat. trois ans yi trois ans yi. da di defaat élection wala dañ lay bàyyi nga toog. waaw loolu moom man du man maa koy wax <laughs> waaw ndax xamul lu tax mhm. xam nga nit ki mhm. euh, sa liggéey rek nga xam te it man jàpp naa ne sax man waruma sax di di xëccoowaat ndax li ma liggéey. jàpp naa ni man li ma liggéey rek ci lañ ma war a mën a juger. mais mandat yi trois ans lañ koy la yem. après ah, day c'est day am na c'est renouvelable waaw mën nañ ko renouveler nag. Mm. mais nag euh, bu ñu toogee ba wax dëgg yàlla bu ñu ci àggee mm-hmm. man dinaa xamal ñëpp sama mandat jeex na. Mm-hmm. ah léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci marché bi mm-hmm. ak waa bureau bi ak ñi nga xam ne ñoo yor euh, li li jëm li nga xam ne mooy organisation marché bi boobaa ñoom ñu xool. nan la ñuy doxalee bu fekkee dañ koy reconduire baax na bu ñu ko reconduire alhamdulilah ñun moom dañ koy renouveler <laughs> waaw ñun daal waaw ñun daal def nañu ah de mën naa ne nag defuñu lépp waaw defuñu lépp mm-hmm. mais def nañu lu ñu mën waaw xëy na nag euh, doomu aadama moom mm-hmm. ah euh, mënul lépp yaaram nga mën lépp mën nga am yéene nag mm-hmm. mais suñ borom mooy dogal xëy na di def yitte nag yi tax nga def performance boo xamante ne koo gis ni xam ne def nga dara te jàpp nañ daal alhamdulilah daal. mais nag dégg naa sa jëw de am na ñu ma tàllal micro nee nañ ma na toogaat ndax doyaluñ ci moom ndax liggéeyam rafet na. waaw waaw Mamadou Seck nee na ngeen toog ba doyal. waaw Mamadou waaw waaw kooku nag moom. waaw wax nga sama président nag. waaw kooku moom mooy sama président. waaw macha allah macha allah. kooku moom dañ koy ñaanal rek. yàlla guddal fanam. dëgëral ko bu baax baax a baax a baax. parce que wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ci bopp regroupement ba léegi ñu ànd ak moom di liggéey rëccuñ ko benn yoon mm. franchement taxawaayam rafet na mm. wax dëgg yàlla moom seeku ku disponible la mm. lépp lu waay bëgg xanaa da koo yëgul mais bu Kees dañoo bëggante Baye Dimbaye fii Mamadou Seck fii dañoo bëggante région de Kees sax la waaw loolu loolu waaw loolu moom loolu moom def naa Sénégal mm-hmm. boo ko doon wër Cees mm-hmm. ak la loolu moo tax na ma wax la ko dañoo bëggante trop. loolu moom ba ba pare nangoo booloo nangoo boole xalaat yi waxtaan yi doon benn. effectivement parce que loolu xëy na sunu mag ñi fi jiit woon defar nañ ci lu bari. muy président euh, président Ndiaga ak président Abdoulaye Ngom. mais nag bi ñëwee nekk ci bi ko jeunes yi jëlee. aussi wax dëgg yàlla macha allah. dañoo yokk wàññiwuñu. waa te loolu nag. président Mamadou Seck mi ngi ci liggéey lu rëy rëy aussi tamit parce que boo seetloo tey boo ci yeneen région yi pour nga gis sa benn euh, mouvement des Théodaliens comme ni mu ni mu ni mu mel nii non non non melul na ci waaw fii nag dëgg la bëri na mi ngi ñu ngi ci onze marché onze marché yëpp dañoo ñu affilié wu ci regroupement des terres de la région de Thiès lépp loo xam ne tey région bi soxla na ko ci ci ci membre ci loo xam ne lépp lu ñuy doxal ñëpp dañuy fédéré wu nekk benn doxal ko loolu nag alhamdulilah yàlla bu ci cat dugg waaw ndax loolu sant yàlla la ndax dama ne wat gaal yéegoo mhm. waaw nee nañu euh, sànqalañ mhm. tuuti na trop mais bu ñu boolee wat weer mhm. waaw ni ko olof yi di waxee waaw loolu rek moo am solo àdduna lépp booloo rek moo am solo ñu bokk ndey bokk bàyyi te xam ne suñ boroom képp ku ne li mu wërsëgal ci yow ala kulli xaal day ñëw loolu nag ngëm-ngëm la boo xam ne jullit ñëpp dañ ko war a maase gëm ko sunu ànd bi ñuy ànd sunu doole la mais bu ñu tàqalikoo rek mu nekk musiba ci ñun kon nañu jéem a ànd te bokk ndey ak bàyyi te waaw alhamdulilah nag cees moom wax dëgg yàlla raison bi ñu ngi dox ci loolu macha allah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. maa ngi dégg ci say kàddu nga ne mag ñi fi jaaroon. ñoo leen yaree noonu. kon yéen a ngi koy jéem a yaree xale yi seen raq yi. waaw effectivement ndax xam nga tegale boo gis rek ca ca ca ca ca kii ba ca suuf la ndax yàlla dogal na njagawaad. 2009 moo njëkk a jiite regroupement bi yàlla dogal ci ci wax dëgg yàlla mu def ci ay jéego yu am solo macha allah boole ñëpp ah bi mu fi bi mu génnee aussi président Abdoulaye Ngom ñëw wax dëgg yàlla yor regroupement bi doxal ko ci beneen manière maanaam yokku dimension bi macha allah moom it bi mu demee ci loolu wax dëgg yàlla président Mamadou Seck aussi ñëw wax dëgg yàlla def ci dem euh, macha allah bâtisseur waaw moom moom la gars yi di wax la bâtisseur quoi mm-hmm. waaw mu ñëw nag yokk ko ci niveau bu gën a kawe nag mm-hmm. waaw te it nag nit ku nekk ak sa chance waaw loolu la yàlla dogal ci moom mm-hmm. te macha allah ñu ngi koy li koy ñaanal mooy gudd fan ak wér parce que doomu aadama lépp lu mën a am gudd fan ak wér moo koy tax a mu mën a mission bi mu bëgg mu mën koo mottali kon loolu lañ koy ñaanal ndax dynamite baa ngi fii ak tamit euh, macha allah ouverture yëpp mu ngi fii kon nag loolu rek la ñuy ñaan. yéene baa ngi fi waaw mais sunu mag yooyu nag dañ leen di ñaanal ndax ñoomit it ñoo ubbi yoon bi wax dëgg yàlla bu ñëwoon xatal ko du yaatu mais yaatal nañ ko ñoomit yàlla na yàlla yokk seen wér yàggal leen fi nag wax dëgg yàlla aussi ñu gën di gunge maa bi macha allah waaw parce que ñoom it ba léegi seen loxo ngi ci waaw ndax conseil day jóge fu ne ak jàpp yi yëpp rek tey bëri na loo xam bu ko soxlaa ci ñoom lay njëkk a dem doogoo jàll ci yoon bi quoi. kon ñu ngi lay jaajëfal saalihaat bi say kàddu rafet na macha allah yal na yàlla xeb dolli yàmm ci yéen ñëpp. say kàddu yu mujj. amiin caat waaw ñu ngi lay sant bu baax nag yow it allah ñu ngi lay beral mention spéciale ndax gis nañ liggéey bi ngay liggéey ci ci ci ci télévision bi ak dynamique bi nga xam ne ak disponibilité bi loolu it nag euh, ñu ngi la ci encouragé di wax ne bul bàyyi jàppare yàlla baax na yàlla na yàlla mottali ah, lii nag euh, le 3 février. maa ngi woo en tant que président maa ngi woo waa Grand Thiès yëpp bàyyiwuma kenn waaw ma jiite ci nag sama bureau bi maa ngi woo ñëpp incha allah ñu ñëw gunge ñu ñu ànd dem wax dëgg yàlla ci. merci beaucoup comme ni ñu ànd waa ni ñu gunge woon sunu participant mooy nday mooy mun a càmm waaw kooku ñu ngi koy nuyu de passage mm-hmm. macha allah le quatre décembre mm-hmm. euh, sagal nañu waaw def na lu am solo mm-hmm. macha allah nday moom may mun ñu ngi lay félicité di la encouragé bu baax a baax a baax waa di woo waa Grand di woo aussi sunu clientèle yi ak sunu client yëpp képp koo xam ne rek sunu nit nga sunu xamee nga ñu ngi lay woo ci bis bi nga ñëw gungee ñu ñu ànd dem ci la différence couture wax dëgg yàlla jàppale ko ndax kooku ci ñun la bokk waaw kooku du gan ci ñun daal ci ñun la bokk bu ñu demee ci bisam sunu bis lañ dem ñu ngi koy waajal wax di ko encouragé gawsu di ko ñaanal réussite totale lañ koy ñaanal ndax Gawsu bu réussir réussir nañ parce que Gawsu ni mu mel ci nit ñi la nit ku ne ni nga mel ci nit ñi rek loolu lañ lay delloo kon ñu ngi ñu ngi wàcce foofu kàddu yi di ñaan rek incha allah la trois février yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm mu ànd ak tal ak fekke ak kenn bañ koo manqué incha allah ñu ñëw ci bis bi jëmmal ko ah soutenir sunu sunu doomu ndey incha allah ñu ngi leen di sant bu baax di nuy sama copain Rachid bu baax a baax a baax waaw caméraman <laughs> Rachid maa ngi lay ziar di la jox sa wàcc yow it wax dëgg yàlla ku baax nga ku ku ku macha allah ku am solo nga ñu ngi ñaanal ñëpp rek di ñaanal aussi président Modou Seck suñ borom yokk taxawaayam bu baax di ñaanal képp koo xam ni téer nga suñu borom defal la wér ak jàmm ak tawféex ba incha allah bis bi ñëpp rek. ah ñu def sañse bu baax ñëw incha allah jàppale suñu copain jërë ngeen jëf merci beaucoup Thiat. acca mu ngi noonu borom sëñ Saliou Serigne Saliou Couture la ñu toogaloon muy président marché Grand Thiès waa Grand Thiès yëpp nag ak li ko wër bu ngeen soxlaa ticket ñëw leen fii ci sëñ euh, Malick Fall mm-hmm. mu ngi nii ak ticket yi. Mm-hmm. nee naa la VIP 5000 la mais simple simple 2000 euh, la kon gaaw leen ñëw fii ci Malick Fall mu mm-hmm. billet yi mm-hmm. mu jaay leen yëpp ngeen daal di ñëw nag. incha allah maa ngi jégalu ndax euh, xam nga mm-hmm. nit ku ne euh, doole bu ne doole jën ndox. waaw yàlla dogal na dañ nekk ci atelier bi liggéey maa ngi fekk ay xale. dëgg yàlla ñu nekk ay xale jàmbaar aussi di ma jàppale ci liggéey bi day jaadu ñu sant leen gërëm leen ci bopp bi nag muy Mambu Xule muy sama doomu nijaay. waaw ah, kooku moom macha allah maa ngi koy beral cant bu baax waaye dinaa ko dóor moom bëgg a dee nag sama copain waaw waaye di sant tamit sama jarbaat Aminta Aminta Guèye waaye di sant Moussa xale yi nga xam dañ may jàppale fii aussi di leen sant baax a baax ci ci ci jàppoo bi ñu jàppoo ñoom seen biir rek loolu neex na ma trop ak dina ak cër bi ñu jox liggéey bi waaw loolu day rafet te day jaadu ndax doole jën ndox la nag waaw xale yi nag seen loxo mi ngi ci biir liggéey bi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw di la sant caat nag Merci beaucoup. Merci.